donc ODCAV Diourbel dafa taxaw tey ci journée de sensibilisation et de partage ci benn projet bi nga xamante ni moom la am mu nekk euh, nawetaanu Covid donc mbas mi gis nañ ni mi commencé am benn ampleur au niveau de au niveau du département léegi li ñu ci bëgg mooy que ni nañ ko fexee nawetaan donc boo gisee ñu ne nañ ko fexee nawetaan dañu xool ni Diourbel quartier boo dem am ASC donc kon bu ñu dajalee ASC Diourbel yëpp mën nañ dajal euh, mën nañ dajal euh, Diourbel moo tax ñu ne nañ ASC nañ ñoom ñëpp génn monter des brigades donc ñu def sensibilisation bi à la base pour que nit ñi comprendre que ni feebar bi mi ngi fi waaye feebar bi kat li ñu ci muccal mooy que ni mesure barrière yi nga xamante moom la kër docteur digle lii ak ak lii la. léegi nag buñ ci defee sensibilisation boobu ba pare leneen li ci des mooy que ni ñun lu ñu am as néew ak ànd ko suñu partenaire muy la direction de l' emploi ak euh, ministre de tutelle ak euh, la commune de Diourbel. ak autorité yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñëpp par rapport ak initiative bi gis ko pour ñoo appuyer ci matériel boobu ñu am moom la dem remettre population pour jàppale leen ci mbir mi. waaw pare nañ boo gisee remise don bi donc firndeel na ni ñun pare nañ parce que ñun approche communautaire boobu noonu moo waral tey ñu xool ni euh, Diourbel ci quartier périphérique yi am na ay postes secondaires yu fa nekk. donc poste secondaire yi boo xoolee néew nañ doole néew doole bi nga xamante ni donc seen fonctionnement toujours dafay am problème donc si lu ñu ñun ñëw jàppale leen si donc collaboration bu lañ bëgg ànd ak ñoom. donc ñoom it lépp lu ñu suggéré comme suñu leen mën a jàppale ñu jàppale leen ci par rapport ak suñu ASA yi nekk xam ne ñoom ñoo leen wër. donc tey dañu ñëw teewal fi euh, le directeur de l' emploi Pape Modou Fall euh, bi ko ODCAV bu Diourbel wooyee si seen approche communautaire boobu ñu tuddee nañu ko nawetaanoo mu nekk approche boo xam ne bi approche bu am solo la parce que gis nañu ne le directeur de l' emploi Pape Modou Fall.

thermoflash, tout ce qu'il y a comme logistique pour vraiment lutter contre la maladie. Le de l'emploi est venu les appuyer. Euh, donc là, je, je, ne saurais le dire donc, en, public, mais je pense qu'avec euh, le président de la il pourrait maintenant répondre. Il n'y a pas de par rapport à ça. Wow, euh, nous avons fait le Jeta Utaibi. ndax que moo ko woote bëgg waxtaan ak ñi nga xamni ñom la jaboté manam zone yi ba ci ASC yi bëgg waxtaan ak ñoom ci solo bi nga xam ni moom la xeex Covid 19 moom la solo moom la moom la am ndax dañoo toll ci jamono boo xam ni son excellence le président de la république dafa ni mënuñu continuer ca nañu doon doxalee ndax jamono doy day dox nit ñi dañoo am seen ité dañu war a dund bon nag nañu fexe ba nous dundendo ak febar bi dundendo ak febar bi moy ku nekk ci ñun warna mëna doxi soxlam wante mu bay xelam ci ni febar bi ngi fi lepp lo xam ne day tax febar bi baña law ñu samonté ak loolu odekav président de la république ci biir département bu Diourbel ne comme loolu la légui bon bi communauté bi la ODCAV ni communauté bi nag moom su fekkee ne ñoom ñoo war a dugg ci xeex bi kenn gënu leen mieux placé pour mën a waxtaan ak comité communauté boobu impliqué leen ci xeex mu ne bon ASC yi dinaa leen dajale jaarale ko ci seen représentant zone waxtaan ak ñoom fexe ba xeex bi ay ASC bu ci nekk yóbbu ko ci biir koñom ña fa nekk ñi nga xam ni dañuy yëngatu ñu biirum santé ñu liggéey nag ñoom ña fa nekk nga xam ni dañuy nekk ay relais communautaire ñu liggéey ak ñoom ña fa nekk doon ay ñoo xam ni dañuy yëngatu ci mbirum diine ñu waxtaan ak ñoom fexe ba ñooñu ñëpp ku ci nekk dugal loxoom ci biir xeex bi bon jàpp naa ni ndaje tey bii ade ODCAV woote dafa doon njat ndaje boo xam ni fépp foo xam ne tey ci Sénégal war nañu mën a am ndaje bu mel nii ndax ASC yi liñ leen xame ci waxtu bii bu daan ñëw lañ leen xamee woon mooy di préparer di fexe nu ñu organiser seen ay match football mais ODCAV Diourbel dafa ni ren football du am wante terrain bi du terrain football ba kese terrain bi bi yoon ci biir quartier yi la fa lañ koy footballee football bi ñu koy football nag moom mooy fexe ba képp koo xam ni da nga bokk ci biir communauté bi nekk ci biir quartier bi nga war a mën a laal ci bal bi bon nag. dañ leen di ci sante bu baax di leen gërëm di leen wan nak administration bi nga xamni mom mo fi mom lañ fi togal représentation euh, son son excellence de président de Macky Sall taxaw nañu ci pour ànd ak ODCAV ci xex bi ñu xex fexé ba Covid 19 nek lo xamni dañ ko fi génné abadan daay tay ci département Djourbe euh ba ci bisu tay bi enregistré nañ fi lu tollook juróomi nit yu amee feebaru Covid. ci juroomi nit ñooñu ñett ñi faj nañ leen ba ñu wér bi nañu seen euh, seen kër euh, am na kenn koo xamante ni fu mu nekk nii mu ngi sous traitement euh, malheureusement ñu ngi am nañ ci kenn koo xamante ni yàlla dafa dogal mu ñàkk kanam comme ni ngeen ko gisee tamit ci communiqué wu tey bi jurbel am na benn cas communautaire muy maanaam cas boo xamante ni xamuñu kan moo ko kan moo ko wàll donc loolu daal euh, ci bis bi ñuy wax ak yéen loolu mooy situation jàngoro ji fii ci euh, département Diourbel waaw cas communautaire yi moom ay ay cas la comme yeneen kaa yi du du question seen feebar dafa gën a metti wala leneen dafa tolloog rek euh, lim ñu jaaxalee mooy suñu amee benn kaa dañuy bëgg identifier ñi nga xamante ni ñëpp ñoom la nekkaloon en contact pour xam ba xam wàllu na leen wala wàllu leen dañuy bëgg aussi ñaari xam kan moo ko wàll pour kooku ñu jël ko en charge waaye cas communautaire yi seen particularité mooy day nekk ñoo xam ne ñaare ki leen wàll du ñu mën a wax ne kii la léegi nag njàqare bi muy indi nag mooy soo xamul kan moo la wàll euh, xëj na kooku kenn gisagu ko xëj na am na ñeneen ñu mu wàll ñoo xamante ni gisuñu leen te loolu day nekk bunt boo xamante ni day tax feebar bi di law donc loolu mooy euh, njàqare bi ci nekk waaye sur le plan clinique ay cas lañ comme yeneen cas waaw loolu dama ne li koy waral mooy xëj na ñàkk xam ndaxte eh, feebar la boo xamante ni moo keneen feebar yi ñoo yem te ku ko am tamit soo wéree yaag ñeneen ñi yéen a yem mënatoo wàll kenn waaye xëj na eh, manque information wala ñàkk comprendre feebar bi nu muy doxee tax na ñenn ñi sunu xasee gis ku ko am rek dañ koy xaw a ragal loolu nag je pense que défi pour ñun ñëpp pour ñu gën a communiquer pour ñëpp xam bu baax ne feebar bi moom am ko moo ko yeneen feebar yi am na sax ay feebar yu ko gën a garaaw yu fi nekk